السلام عليكم ورحمة الله بكي نجلي نيو دي لن زيار لن بالو حق نان برام سبحانه وتعالى بولن جغل حديث تيبي دفعي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم صحيح البخاري ينتبي صلى الله عليه وسلم فخجي حديث بنه آه، رزلتاو جف يب مجي مجيغا حديث بي مجي صحيح البخاري Euh, lu simple la pour ñu comprendre ko lim lim ñu bëgg a jàngal mooy jullit bi lépp jullit bi lépp lu muy def lépp lu muy def mbir ma bu dee wax lu jaamu yàlla la ak moo ak julli la wala mu sóobu yoon wu baax wala muy jug jëm ci loo xam ne lu baax la wala mu nekk di yëngal loo xamante ni ñu ngi ciy yaakaar ngërmandeg yàlla lépp résultat bi mu ngi ca mujj ga bu bu sellee ca mujj ga rek loola yàlla des na ko nangu mujj ga nag bu yàqoo rek daanaka dara baaxatu ca moo nit dina sóobu yoon woo xam ni yoonu maanaam yoonu ñaay la yow maanaam yoonu ñoll la muy dox di dox di dox ba ci yàgg mu daal di orienté wu jël beneen yoon boo xam ne yoonu jubla la waaw góorgóorlu ci lu ndaw daa ci dajeeg yërmande yàlla yàlla tàbbal ko aljanna moo buñ dee dund gudd fan baax na lool ay li eh, sax ci jaamu yàlla baax na lool waaye mbir mi yëpp mu ngi ca mujj ga fa ñi teere maanaam suñu fan yu mujj ak suñu heure yu mujj nan la ñuy def ci période boobu ndax duñu li ñu liggéeyoon yëpp du màbboole déet lu mat di bàyyi xel la mbokk yi ñu ci bàyyi xel bu baax a baax baax lépp lu ñuy def ñi sorale di ànd ak concentration tey bàyyi xel mujj ga ndax mujj ga bu baaxee lépp baax bu yàqoo it lépp yàqu moo tax nit dugg na ci yoon mu doon yoonu sànkute mujj ga baax mu dajeeg ngërmandeg yàlla nit nit dugg na ci yoon mu doon yoon wu baax mujj ga yàq mu jëlee ca rëbb yàlla yàlla tabbal ko sabar yan ñu ci yàlla musal wal qawli hada wa astaghfirullah al azim li wa lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa